war a sopp li may wax damaa bëgg a déglu ko bu baax dama ne. waaw waaw boo ñëwee sa kër gis fa mbër. moom la jaaxal. boo ñëwee sa kër gis promoteur. waaw moom la jaaxal. boo ñëwee sa kër gis amateur. moom la jaaxal. boo ñëwee sa kër gis ab ngemb moom la jaaxal boo ñëwee sa kër gis ay billet moom la jaaxal buñ la toggaloo jouru stade moom la jaaxal buñ la jaayloo ay ticket bu mu la jaaxal buñ la dénkee ay millions bu mu la jaaxal. buñ la dénkee ay milliards bu mu la jaaxal ndax lépp ci biir làmb la. yàlla na njaboot gi barkeel. na ngeen ci am doom yu góor yu jigéen yuy tabaxal juma. ak jàkka yi waaye nag jamaïcain. waaw doomi militaire lañ la may. foofu laa bëggoon a ñëwoon militaire ñoo may jabar. waaw repos. Gardez-vous, marquez les pas. mais nee nañ nee nañ lu jam def am na problème. ma ne ah ma ne dama non man papaam la. yow papaam nga. dama la ne wax fii. militaire bu la mayee jabar. waaw les ordres sont à exécuter. sans murmure. Ah. ni refrain. Ah. l'auteur qui l'en donne en est parfaitement responsable. Ah. donc lenn moo am. waaw déglu ma bu baax li ma la mooy respecter les ordres. respecter les rangs. li xale yi doon way nag tey ko war a way. muy bul dóor bul saaga. doomi militaire lañ la may. bilaay am na naa naa naa ko defar. wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait.

Jibi ànd ak aussi frère yi nga xam ne Fatou. li nga xamee ne ah dogal na sa papa dem armée euh, ñun ñii la àndaloon en 1991 ñu demandoo armée moom mu nekk commando man ma dem gendarmerie kii c'est un champion d'Afrique en judo ñeneen ñëpp yàlla dogal na dem nañu ci jamee may nañ la ci far yàlla suras Muhammad waaye mënu noo dem te waxuñu la ni la gàcce ngaalaama juddu nga fañ la war a jure nga màgg fañ la war a màgg sa waajur wu jigéen mu ñëw ñu loo xamante ni nii tey jii moo prouvé que ni moom vainqueur parce que maam ja nday ja tey jii ah képp koo xamante ni yaa ngi yeewoo Sénégal yaa ngi bëggoon tey am jëkkër yoo xamante ni am na tur am na islam yaru na baax na li ci des nag mooy sa taxawaay sa kanam waytu laa lay wax ni la moo leen desneer boo musa laxe sa Dakar ba Tamba pour solal ko sa papa ji loolu moo jur tey lii fii nga jëm nag sëy la wax nañu mbokk jamaïcain nee nañ eh ñun ay militaire lañu ñun ay commando lañu buñ la may jabar boo ko dóoree wala nga tiistal ko wala nga stressé ko dañ lay duma li ci des mooy boo la tooñee yow sa boo ko tooñee moom na la baal waaw. yow boo ko ñaanee na la may. per xoolal caméra yi dama bëgg ngeen oo jamaykee. adduna lay ni ko. waaw kii nga xam ni yàlla dogal na muy soxna Sidi Fatou. waaw moom. su ko tooñee. non na ko su ko ñaanee. waaw na ko may. ndax moom du ñaan. formé nañu ko. waaye li ñu leer te leer mooy. moom bu ko stressé. ñun ay commando lañu. ay militaire la dañ koy duma. mais man loolu ay loolu dama bëgg yéen ñi ci ginnaaw ak yéen ñi ci kanam. ngeen xool sama doom sama doom doxal ba fee ñëw. xool leen sama doom. xool leen sama doom yéen xool leen sama doom yéen lan leen wax sama doom ah wax leen jamaïcain li mu wax sama doom su ko defee ñu ngi lay ñaan nga góorgóorlu ah allez tawari jour de yàlla yàlla saxal ci sëñ asalaamaaleykum wa rahmatullah ah, li sëriñ Babacar Mbaye wax léegi rek waaw dañ koy firndeel ñun ay soldat lañu ñun ay militaire lañu xëy na Babacar gendarme kii nekkoon région de Ziguinchor sixième bat Samba Diop ak man mi Samba Ndiaye ñu bokkoon nekk commando Samba sa baay dafa guerre en 92 au Libéria sa papa nekk un légionnaire dem guerre ba ñëw di bañ di bañ ba tey mu joxe la ndax sa ndey moo nangu sa baay la sa nangu moom nga for tey taxawal fa sa taxawee sa baay xëy na yor lu mu lekk sa ndey ut lu mu lekk pour jamaïcain moom ngay nekkal suturaal ko teral ko tekkal ko yow yaa ko mën a yor jamaïcain mënu laa yor yaay jigéen yaay ndey kuy muñ yaay yaay ku uuf yaay kuy ëllëg yàlla ñu yàlla may nag ñu fekk ëllëg ñu gis si doom barke bi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi